ci la lépp xaj nañu doxee jàmm wax jàmm jëfe jàmm dafa nekk loo xam ne dans ce pays tant amuloo ko muy laa mu ni ko waxee ne mooy jàmm soo ko amul réew du développé te jàmm fépp la jàmm dafay door ci njaboot jógee ci njaboot dem ci société bi toll nañ foo xam nag léegi fi mu nekk nit ñi léegi dañu dema dem ba teggi jàmm teg de côté du dëgg kenn waxatul jàmm à part kilifa diine ak ñi yàlla jàmm jàmm nag ni ma ko laajee dafa am loo xam ne dama ne la bépp réew boo xam ne jàmm amu fa du progressé mu nekk Sénégal mu nekk feneen kon donc fii mu nekk nii suma xalaat mooy nañu fexe ba di woote jàmm nañ fexe ba di wax jàmm di jëfe jàmm

dem top association yi xol nan la def pour treize équipes nawetaan nek ben benn lañuy la ñu ba ñun ñëpp ñu retrouver ci ben l'essentiel moy nan la ñuy def pour dimbali dirigeant wu nawetaan loolu moo ñu initié moo ñu nek fi di gërëm wa medina di gërëm association Dox jam bi nga xamanteni tay tey ñoo tourne euh,

Pa As Diaw Pa As Diag ak li mu def ci Sénégal def ko ci sport parce que esprit sain ci corps lay nekk nga mun a tey ci sport nga mën ci def lu bëri créer ci lu bëri ci emploi ci lu ne

safoo maam Ousmane Ndoye bëgg maam Ousmane Ndoye xam mbégte nga ciy am donc ñu ànd ci ak fierté nangul leen ko nag xam ne bëgg nañ ci def lu mu ne ba tournoi bi damay ñaan bu fekkee waa Médina sax nangul nañ ma ko ak ñi ko organisé mu doon tournoi bu nga xamante ne bii perpétuellement day am année bu ne xam ne pas as incha allahu rabbi ak ah kenn du ko fàtte ci li mu fi def loolu daal maa ngi koy ñaan

gis nga dox bi ñuy wax nii gis nañ fi benn poli ñaari politiciens yoo xam ne nekkoon nañ ci dëkk bi surtout Médina ak Plateau am na loo xam ne ñun dox nañ si jël nañ suñuy banderole dem seeti ñaari camp yëpp toog waxtaan ak ñoom ne leen jàmm moo gën lu ne parce que soo xoolee ñaari camp yooyu bi ñu seetloo ñaari camp yëpp ay frères lañu politique bi moo leen divisé woon rek mais ay frères lañu tey nawetaan bi ñun ñëpp ay frères lañu ñun ñëpp treize équipes nawetaan yëpp dañu tuddante ay doom am na si ñoo xam ne dañuy demalante gis nga li ma initié ba ma créé lii dafa am jour ma tok sama koñ ben xalé né ma ngi dem kusum ma ne ko foo jëm mun a kusum ci ñan ngay dem mun a samay boy ma ne ko après yeen yéenay bok après di sandante xéer li ñu initier pour ñu def li dafa bëri mais gis nga dox jamm bi ngay wax ñu ngi ci té et puis c'est important ñun dañu tollu fo xamé gis nga nawétan bi il faut que ñu tay dirigeant compétent il faut que ñu waxante deug il faut que ñu wax suñu jour yi ñi dem du yobbu ñu ne ay éducateur lañu ay entraîneur lañu ñu ngi gis dox jàmm yëpp ay éducateur ay entraîneur yi ñoom ku ne soo tàmbatee sa jour ñoo woon ne tey da ngay gagné suba ñu gagné la tey da ngay nul wala suba nga am défaite gis nga bu dëggoo ci ñoom yaakaar naa incident dootul am moo am beneen culturel dafa bokkoon ci nawetaan léegi culturel dee na ci nawetaan soo ñëwee tey sooy organisé football la ngay organisé compétition yi bëri woon na athlétisme handball théâtre yooyu yëpp dee na ci nawetaan te nawetaan nañu wax nit ñi dëgg wax leen dañ jëm pour football yi te bu ñu footballee dañ lay gagné. am na loo xam ne dañ ko ciy boole muy mystique bokku ci dañ daan dem mystique naan nañ sang waa ji parce que nit ñi leen di xool dafa bëri loolu moo indi woon mystique mais dem na ba nga xam ne léegi da ngay toog fa ña gagné nga 2-0 fu ñu ko teg amul fenn li am mooy nañu booloo nekk benn jëddaat suñuy doom yi wala ni nawetaan foo la ax ree c'est important ñun nag ñu ngi jéem motale wuñu lépp mais ñu ngi essayer à nos maigres moyens di dox ci jàmm te jàmm rek la ñuy balaa ngay nekk encadreur da ngay mëdd nekk ñu dénk la ay ñi xale da nga naan nekk royuwaay ngay nekk dafa am mandarga yu bari yoo xam ne soo warloo ko am xale bi su ñëwee sa loxo tey muy sa doom tey nga ñëw ci man. dinaa fexe ba nga def ci moom loo xam ne njëriñ lay nekk ci moom ëllëg ba yow sa bopp bi nga xam yaa ko ci man di nga am yaakaar ba yàkkamti mu dellusiwaat ci man maanaa dama war nekk ci place su ndey ak place su baay sama yi xam leen tamit luy waajur parce que am na loo xam mu ngi teggee ko Sénégal waajur yi kenn déggatu leen kenn fàllatu leen te loolu mu ngi def ci njaboot gi lay door ci biir njaboot gi lay door. foofu la ñu yor xale yi yor leen su ko defee suñ demee ba nekk ci encadré encadré école football yi du jàngal xale bu football rek xale bi dañ koy def ba mu nekk ëllëg nit moom la ak maanaam ñi nga xam ne ñu enseignant yi ma di ñaan ñoom ñëpp ñëpp sacerdoce la boo xam ne soo koy def doo yaakaar lu dul ngërëmal yàlla yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li nag lu ñu plus la nekk rek. mais nañ soppi jikko yi jikko yi nag soo koy soppi yow mi koy war a sotti da ngay soppeeku yow sa bopp mandar nga nga nekk ba xam ne xale bi su lay xool daf lay roy su lay roy lu bon li nga xam ne yëpp ay li nga xam ne day yàq doomu aadama warul feeñ ci yow lànkat di rek ah waaye daf lay xool dama wax toujours na leen xale alalu yàlla la kon boog nañu am yërmande ci xale yi mu ci encadré muy enseigné mu dañu am yërmande ci xale am naa loo nag metti na ma lool mooy damay ñëw rombay xale ñu ne la ndax ndax yàlla ñu ñëw maam as man leen ndax jàng ngeen ñu ne ñu ne suñu met dafa gërëm bu leen dara poussé ba ñu ñàkk xam dañ leen jox xam-xam xam-xam bi war nag yëpp njëriñ yàlla la li nekk rek dégg kooku maa ngi leen koy ñaan nañu fexe ba am yërmande ci njaboot bu ndaw jubbanti leen teg leen ci yoon ba ëllëg xam-xam bi war ci ñoom ak yor ndéew ëllëg ñom ñoom ñu mën ko jël ñoom ndéew waay jur jël ñëw loolu noonu la barki démb bi ñu seet see euh, capitaine du stade bi dañuy wax ak moom leer na suñ ko neewoon ay senior la mën a doon fi football mais dañ ko ne ay vétéran la mu ne waaw mën a nekk da ngi di football gis na loolu ngay wax noonu président capitaine dama ko ne gis na match soo amee fii mu doon jaraaf leneen wala mu doon jaar nous on pour ñëw dox si jàmm pour ñëw wane wan supporters yi ñii dañuy football ak day jeex bu jeexee dañu war a rendre dellu suñu bopp mais ñii nekk ci tali bi yor seen oto ñii nekk si yor seen teranga ñemeetuñu bu ci amee ñu doxal seen oto kon ñun ñoo leen war a sauvegarder ma delluwaat si li nga war gis nga wax boobu dinañ ko dox waxtaanee ko muy que tey mat match euh, stade yi tëj nañ leen ñun ñoo war a dox dem seeti ñi nga xam ne ñoo war a football wala ni ci football lay yem yomb nag ah muy penc.